aja aja ñu déglu imam allo allo Oustaz allo ngi lay euh, nuyu depuis ci subaak léegi yaa ngi ci euh, biir euh, jot nga dégganteeg wala sax jot nga seetaan li nga xam ne moom mooy procès bi déroulement bi kat yi nga xam ne imaam njëkk na ko yëkkati lan la. man. Euh, tur bi ak sant bi imaam Daouda Camara. coordonnateur collectif ànd taxawu imaam Cheikh Tidiane ndaw waaw maa fas yéene tontu seen laaj yi. Mhm. waaw di santaat yàlla bu baax. ndax euh, imaam mi nga xam ne moom lañ doon waxtaane ci suba ak yéen imaam boobu lañu gisaat tey muy imaam bu dellusi si li mu doon jàngal nit ñi ñu gis ko ci moom muy dëggu muy gëm li ngay def muy gëm li ngay wax mu nekk jëmm ci yow loolu la ñu gis ñun ñëpp wax dëgg yàlla suñu xol sedd na guy guy ci moom. Mhm. ci taxawaayam ak tontu yam mais rawatina nag li nga xam ne moom la gën a firndeel muy baatu musuma jéggalu. Mhm. loolu moom dafa gën a sedd suñu xol. musul jéggalu mosta jéggalu. Mhm. nee na loolu gars yi ñoom ñoo ko def rek ci kii yi ci PV yi mais baatu jéggalu moom. mu ngoog waaw kay. donc euh, no bu dee taskatu xibaar yi moom xay na si seen si seen mbokk ñoom ñoo ko fésal moo ngi ñoo fésal kooku euh, mais loolu imaam dàq na ko donc ba pare saxal li nga xam ne moom la doon wax parce que moom nee na li mu doon def ci yoonu jàngale la ko teg donc euh, bi ko procureur tamit waxee ne ko ñaawaayu wax ji mu ni leen mu jox leen référence ci suuratu Yusufa parce que yàlla xamut wax ju ñaaw wala wax ju rafet li mu xam mooy fee bi mhm. bu dee lu bon la nañ ko dénoncé su dee lu baax la tamit nañ ko wax kon imaam bi ñu gis tey imaam la bu ñu rassuré imaam bu dal suñu xel la imaam la boo xam ne képp kum doon jàngal tey tey jii war nga bég war a xam ne moom li mu la doon jàngal moom moo la ci jiitu waaye imaam la boo xam ne li maam Seydil xaaj Malick waxoon te moom mu mu nekk ci war a dini bil xadaa rabbi mu sabbira nii ala balaika ya rahmaanu yallaahu imaam boobu la ñu gis tey ji voilà xanaa yow mi nga xam ne jege nga imaam. Euh, pour nga dellu tuuti. ndax euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw tey jii ni bokkuñu lu ñu wax wala ñoom ñoo bokk benn wax ci ndax euh, bu fekkee ne imaam mun dafa doon jàngale lu jëm ci. wàllum borom ñaari tuur yi est-ce que moom jot na wax ni diw ak diw ay borom ñaari tuur lañu wala moom dafa jot jàngale ci li nga xam ne mooy doxalinu borom ñaari tuur parce que kaddu yooyu noonu tam il faut euh, ngeen jotal leeral ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy askan mi imaam tuddul kenn accusé wul kenn ne ko góor jigéen nga. imaam da doon leeral euh, ñi nga xam ne nii li nga xam ne moom la yàlla bañ. loolu xam li nga xam ne tey jii maanaam imaam li mu taxaw tey jii moom la waaw kay taxawaayu kuy jàngale moom la taxaw mais taxawul taxawaayu kuy euh, kuy accusé ku mu mën a doon déedéet imaam taxawul taxawaayu accusé accusé kenn mais dafa taxaw uniquement pour jàngal pour jàngal ñi nga xam ne tey moom mooy askan wi ne leen lii de baaxul ba ci ñi nga xam ne nii ñooy ñu njëkk ña bi ñu ko defee yàlla bi mu ñëwee dafa labu da leen a labouré kon loolu tamit suñ suñ fekkee ne dawuñu ko su ëllëgee bu ñu yàlla labouré wul fii it bu ëllëgee danañu labouré fañ jëm te loolu wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañ ciy am suñuy part de responsabilité. tey lan euh, xam ne waaw li may ñaan toujours sama justice te man ma wéy di ko gëm mooy équitable bi nga xam ne moom la xaar ci moom. muy justice bu équitable boobu toujours daal na ko wane te man xam naa ne euh, bu loolu amee tey ji incha allah duñ fi bàyyi Imam Ndao suñuy ñibbi ñun ak moom nooy ànd dem ñibbi waaw loolu moom lu ma gëm la lu ma xam la incha allah. gën a dalal xelu famille bi itam ndax ñu ngi waaw famille bi maa ngi leen di rassurer di leen wax ne imam teggiwul dara ci waxtaan boobu mu doon waxtaan ak askan wi doon leen jàngal doon leen yee. teggi na tamit tuuma boo xam ne ñëpp ñu ngi ko doon laam-laami ak di ko jaaba jonge di wax ni imaam dafa jéggalu ak sax li ma gën a métti man mooy imaam dafa daw dafa fay portable am te loolu dara amu ci loolu yëpp ay tuuma la ay waxi noonu la kon na seen xel dal imaam bi ngeen xamoon démb ak barki démb tamit tontu na leeral ne moom bokkul ci benn parti mbirum politique tamit intéressé wu ko mosu ci nekk waaye nag wàllu jàngale moom kenn mënu ko ko ci loolu lay nekk parce que loolu moom mooy ndono mag ñi kon ñu ngi koy ñaanal yàlla mu génn ak jàmm moom ak ki mu fi duggandool muy Bah Diakhaté tamit ñu ngi koy ñaanal ñu ko Cheikh Mahi Niass ñaanale noonu lañ koy ñaanale moom tamit pour mu génn ci fii nekk ak jàmm dellu si waat ci seen askan jàngal leen donte fañ nekk ña ngi fay jàngale waaye nag gën leen leen soxla fii tey ci biti incha allahu taala. jaajëfal bu baax waaw jërëjëf yaay xam naa kon ñu ngi lay xaarandi rek mën na mën na ci li nga xam ne nag euh, moom mooy euh, tuuma yi ñu doon wax ni mm-hmm. imam tuumal na ko ki nga xam ne nag moom mooy euh, le premier ministre Ousmane Sonko ko dégg ngeen imaam li bi mu jëlee kaddu li mu jot a wax moom jàngale la doon def waaye ñëwul benn yoon waxul benn bu yoon euh, li nga xam ne nag euh, moom moo jëm. voilà kon ñu xaaral euh, bi nga xam ne moom moo ñu. en attendant mu jël kaddu ci biir. voilà Nabou. boo nooyee boo ay ca mu ngi noonu ñu ngi woon. ci baar bi. donc dañuy wax conférence. Mhm. mu des tënk. Mhm. parce que bëri na ci li nga xam ne nag mooy débat. Mhm. ndax euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñooy farandoo ba jaxte bu ñu ñëwee dañuy wax ni. parce que xibaar yi li ñu nekk di wax. ci li nga xam ne mhm. ci tribunal mhm. li nga moom moo jotoon génn. ci mën a wax mooy que ne Bah Diakhaté dafa ñëwee li nga xam ne moom moo di fee yi nga xam ne moom lañ ko daal di accusé euh, de même que imam parce que imam boo gisee euh, li nga xam ne nag moom la waxaat léegi mooy euh, kii nga xam ne nag moom moo di Ousmane Sonko nit ku baax la te ku ko xam-xam ne nit ku sell la moom dafa dal di référé wu rek ci li nga xam ne moom moo di waxu ki nga xam na nag moom moo di Bah